cant bi particularité bi mooy danoo toog euh, une année ak euh, mbas mi amoon ñu defoon ab pause ñu war a reprendre ndànk-ndànk nag parce que cant bi cant sëñ Fallou la mooy parrain bi di parrain école bi a ah, ñu yàgg ko def nag muy seizième fois bi tey jii nag euh, vraiment ñun ñëpp dajaloon nañ pour dikkaat nag respecter li nga xam ne lii mooy li ñu digal ci affaire geste barrière yeeg ak sur le plan médical delloowaat li nga xam ne lii moom lañ daan def tàmm koo def ci li nga xam ne lii mooy mbiru cant bi tey jii nag élèves yi daje nañ ak parents d'élèves yi ak enseignants yi professeurs yi ñëpp ñi nga xam ne ñi ñooy contribuer ci école Fallou Galass euh, pour commémorer bis boobu tey nag dañ koo jël war nañ koo jël parce que d'abord euh, bis bi laaj na ko di sant sëñ Fallou bu baax a baax a baax parce que lépp lu moo ko waral di ñaax élèves yi pour que ñi nga xam ni ñoo gën a nekk euh, ay jàmbaar ci école bi ñu vraiment sargal leen sargal professeur yi sargal waa population Mbacké yi nga xam itam ñoo am seen euh, kattan am seen fayda ba indi seen i doom ci école bi muy fin d'année boo xam ne bii nag dañ ko war a recommencer waat ci bisimilahi rahmaani rahim ñaan mbas mi dem ak jàmm ñu continuer suñuy sargal jàpp am ay kóllëre yoo xam ni war nañ ko mën a def ak yenn nit ñi ak saafonte yoo xam ne waroon ko def ak yenn parents d'élèves bi ak sëriñ si nga xam ne ñii surtout waa kër sëñ Fall yi nga xam ne ñoom école bi rek moo leen ñor xam ngeen bu ñu defee seize éditions yoo xam ni ñi ko daan def peut-être que ñoom ña nga université peut-être ñoom ñu ngi ci li yenn service di liggéey ñu ni anciens élèves yooyu ak étudiants yi nga xam ne ñoo nekk dans les universités ñu jagleen leen ko pour bis bi ñu wax ni ñoom itam di leen jaajëfal parce que commencement bi ñoom la woon. tey jii ku dem itam ba war a dellusiwaat war na la mën a décorer wala mën a sargal bis bii nga xam ne bii mooy bisu Fallou Galas loolu vraiment pour leen war a wax ne na jaajëf parce que ñoom am nañ ci école bi yàlla may leen ñu am ndam ci école bi am fi ay lijaasa am na ñoo xam ñu ngi commencé liggéey sax ñooñu daal bis bi ñoom lañ ko jagleel pour sargal leen. période bii day période examen xale yi nga nekk ñi nga xam ñoo nekk ci élémentaire bi ñuy def certificat ak entrée en ak moyen secondaire bi nga xam ne ñoom ñi ngi def brevet ak bac ak génération yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi def composition ñoo ñëpp dañuy leen di ñaanal comme ni ko daan defee at bu njot di leen ñaanal yàlla def leen may leen lii nga xam ne moom la ñu wut suñu borom may leen ko mu nekk seen njiglaay aussi. parce que école bi yàgg na def ay performance ñu toogoon at moo xam ne bi ñaan gi xëñ na defuñu ko wante ñu ngi doon ñaan di ñaan ci barke sëriñ bi. lii nga xam ne ñu ngi koy def bis bi liñ fi ñaan yëpp yàlla nekk loo xam ne muy nekk lu yiw ci élèves yi jigal leen euh, lafal leen cat ñu am ci jàmm examen yi baax ñu def ko jàmm salaam loolu daal mooy li nga xam ni moom lañ mëgët bi. te dañoo doon ay étudiants yoo xam ne ay anciens élèves lañ woon ne woon ci école bi doon fi jànge te école privée Fallou Gass ñëpp xam nañ ni c'est pas une école publique école privée la te école privée xamee wuñ ko ay étudiants yi génn fa pare dellusiwaat ci école bi ñu bis. kon tey bu loolu amee ñun dañ ciy sant Serigne Touba bu baax a baax a baax li nga xam ne ñun moom leen jiite muy le rassemblement des élèves étudiants de Fallou Galass di euh, structure boo xam ne ñun ñoo ko xalaatoon bi fi bi nga xam ne am na am nan bac nga xam ne dara waralu ko lu jàppalante suñu biir entre étudiants ak élèves ndaxte ñëpp xam na ni jàng dafa métti élèves yi kon ñun ci loolu lañ xalaatee daal di gudd benn kurel tuddee ko rassemblement des élèves étudiants de Fallou boo xam ne dañuy ñëw chaque année pour jàppale élèves yi nga xam ne ñoo ci école bi waaye tamit duñ ci yem ci seen bag ak seen BFEM bu ñuy waaj BFEM bu ñu paree dafa leen cours de vacances su ñu amee bac ñu accompagner leen dafa leen inscription campusenne bu nu paree ñu ànd ak ñoom dans les universités que ça soit muy UCAD que ça soit muy UGB muy Thiès Bambey euh, Ziguinchor euh, Sine Saloum ak fu mu mën a doon ISEP ñu leen di jàppale ci seen insertion que ça muy pédagogique que ça muy social ci jàppalante boobu nag moo waral lii école bi mu defal ñu honneur loo xam ne daf ñoo neex muy fexe ba def ñu ñi xam ñun ñooy parents yi ñun ñi nga xam ñooy ressources en Fallou Fallou Galassy tey képp koo xam ne yaa ngi étudiant nga muy ressortissant foo mën di jugee ci àdduna foo mën di nekk ci dans les cinq dans les sept universités du Sénégal jugee nga fa ànd ak ñun ñu jël bus àndandoo jugee Dakar ñu jugee GB ñu àndandoo bus bi tey tey tey jii yaakaar naa mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla ñun rafetlu nañ ko ñu ngi ko ñu sant bu baax a baax a baax loolu moo waral suñu teewaay tey suñu relation administration bi boo ñu ba ma fekkee Omar Gueye Omar Gueye dama ko xoolee bëtu ki nga xam ne moo toog ci bureau non man mag laa koy jàppee moom rek la may xoolee père Morane papa laa koy xoole moom doom la may xoole administration bi monsieur Touré ñoom ñëpp élèves yi xoole leen simple élève mais dañ leen xoole comme seen doom loolu c' est ça qui fait le charme de en de Fallou Galass c' ça qui fait le ciment de Fallou Galass mooy social bi nga xam ni moom la école bi di doxe social bi nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci école bi maanaam élève nga doom doom ba mee problème nga dem ci père Morane wala nga dem ci d ni ko man de dam problème sàngam la am école boo fi duggee doo xam kuy fay 10000 ak kuy fay 5000 doo xam kuy fay 15000 ak kuy fay ak koo xam ne du fay ndaxte école sociale lay dox te loolu mooy li nga xam ne moo tax ñun tey ji ñu am benn sentiment euh, de reconnaissance ba même bi nga xam ne génn na ñu desuwaat ci école bi di jàppale élèves yi di jàppale école bi ci yu bëree bëree bëri et incha allah on va vers jéem a créer ce qu'on appelle benn école de formation boo xam ne élèves yi étudiants yi fi génnee di jàngi dem Dakar def ay problème ci yi ñu ngi xalaat nan la ñuy def ba jéem a créer benn école formation boo xam ne ñu ko tuddee Fallou Gallas école privée Fallou Gallas avec l' école avec le PDG nga xam ne étudiant boo xam ne Fallou Gallas ngay jànge am bac jëlatul ngay génn di dem di jàngi Dakar wala feneen def formation professeurs yi ñoo ngi fi ñu leen di dépêché ñu ñëw ñuy defee fii formation am amee seen diplôme fii nii ndax conditions yi à Dakar c' est tellement difficile ndax xam nañ ni mu demee kon loolu ci lan ci lan nekk boobu ba léegi kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax voilà. nu daje tey li ko waral muy cant gi nga xam ne école privée Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké moo koy amal at mu nekk mu di ko amal ren nag contexte bi ñu nekk moo waral mu demee nii waaye lépp tawféex la ñu ngi ciy sant ñëpp rek mboolem koo xam ne def nga déplacement ñëw fi ñu ngi la ciy sant di sant mbooleem yi nga xam ne dañuy jàngale ñu ngi leen ci sant di sant mbooleem ñi nga xam ne dañuy surveiller di sant mboolem ñi nga xam ne dañu fee ñëw macha allah mbisum mbégte la mbisum tawféex la waaye di ñaanal ñi nga xam ne it dañuy def bac ak BFEM yàlla defal leen tawféex ba ñu am bac 100 pour cent yàlla mën na ko ci yàlla na ko def moo xam ñi nga xam ne yëg nañ leen ak yi ñuy yëgut ak mboolem groupe yi ku ci mel ni yow sa groupe bi nga xam ne moom nga taxawal muy mouvement dooleel cant gi def rôle bu am solo ci cant gi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di sant waa xidma di sant étudiants yi di sant ñëpp wax dëgg yàlla mbégte la te mbégte moom mbégte rek lay doon kon nag kàddu yi mbégte la di sant nag Omar Gueye di ko sant bu baax ndax moom day ku baax di sama wóllëre di sama lépp wax dëgg yàlla dañoo seq loo xam ne sax maanaam du ciy école bi puus mu dem puusul mu dem yàlla na ci yàlla def tawféex mboolem ku fi nekk rek yàlla na la yàlla defal tawféex ba boo fi jógee nga nekk koo xam te ne dañ lay naw koo xam ne dañ lay fontu yàlla na yàlla def jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. Baaray Madou Lamine. Mamadou Lamine Baara. Baara ku la way am ndam. Baari saxaaya. Baaray Madou Lamine. Mamadou Lamine Baara. Aziz sama may sunu mbër.